xam nga bi nga xamante ne moo nekk si département bi pour wax si li nga xam ne ne mooy politique gu département bi ñun mosuñu changer suñu discours yàgg nañu wax ne ne bu Macky Sall ne weex na ñu ne tàll yàgg nañu wax ne ne bu nee ñuul na ñu ne kukk bu nee xonk na ñu ne coy donc ñun amuñu loo xam ne ne dañ koy dute si discours bi moo nekk tamit candidat wu jeune département bi yëpp ak képp koo xam ne ne mu ngi si département bi di xeexal la président Macky Sall wax nañ ko léegi nit mun na am ambition on peut ku si nekk mun na ne candidat la mais boo nee candidat la ba ki nga xam ne mooy le président Macky Sall mu incarne la vision du ps e, ne man kii mooy sama candidat ñëpp dañoo war a plier wu.